Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa kifni TV assalamualaikum TV wa jotaayu jamono wa assalamualaikum wa taala wabarakatuh suñu eut keuru kilifa diine yi na jiital ci nuyo bi Serigne Mamadou Muntaxa mbake yalla nako fi yalla suñu borom yagal te wéral ko te katanal ko defal ko jamm defal ko fami bi nga xamanteni moy Serigne wa gi ak njabotam gi yépp waye dem ba fi nga xamanteni bi mom moy tiwaawoon fekk fa sëriñ Mbaye si Mansour al Khalifa ñu ñaanal ko yàlla suñu borom taxawu ko sàmm ko yàggal ko fi bàyyi ko fi ba ca kanam a kanam a kanam waaye nuyu bu baax a baax a baax waa Kaolack dem ba Medina Baye fekk fa suñu kilifa suñu baay suñu xalifa suñu lépp muy papa mai Ibrahima Niass ñaan yàlla suñu borom kàttanal ko wéral ko te bàyyi ko fi jóge fa dem ba Touba Ndorong fekk fa sëriñ Babacar Mbacke mu kabuloo surtout Basirou yal yàlla sàmm ko moom it aar ko bàyyi ko fi te yàggal ko fi ndax liggéey bu am solo lay liggéey ci kër sëñ Basirou rawatina ci kër maamam googu di Touba Ndorong waaye ñu jegee fa dem ba Léona Niassène fekk fa xalif général bu Léona Niassène nuyu ko ziar ko moom it ñaanal ko mu yàgg fi loolu te ànd ak wér demati ba fa nga xam ne mooy kaneen Léona kaneen yàlla yàlla suñu borom sàmm famille alaaji Souleymane kan yëpp yàlla yàlla taxaw leen te sàmm leen te aar leen jógee fa nag jëm ci li nga xamante ne bi mooy waa jàngu bi dialogue islamo chrétien bi ñaan yàlla suñu borom taxawu seen pap bi te sàmm ko te aar ko bàyyi ko fi ba ci kanam a kanam waaye di bu baax borom télé bi mooy Serigne Moustapha mi nga xam ne xataluñu wax dëgg yàlla bu ñu xataluñu te daf ñoo yaatal ba ñu yaatu Moustapha ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ziar njabootam di ko seet di seet njabootam waaye di ziar bu baax sama kilifa suma Serigne suma lépp sama xarit sama genn wàll borom mu mukarama borom umra borom lépp ak fépp. di ki nga xam ne mooy Serigne Dame Sakho surtout Alaaji bu Sakho yal na yàlla suñu borom sàmm ko yàlla suñu borom aar ko wës bu yàggul dara la jógee fi nga xamante ne bii moom mooy umra ca makkatul mukarama ziyaara ji rasulullahi alayhi salaatu wasalaam borom bareeru or ba ca Medina kooku Alaaji bu Sakho demoon ziyaara ji waaye ma ziyaar ko bu baax moom tamit moom Serigne Dame Sakho ñaanal ko yàlla wéral ko ba mu yàgg faa dem di fa dem di fa dem di fa demati waaye di nuyu bu baax waa kër soppe Serigne Dame Sakho iliman di bu baax groupe soppe Serigne Dame Sakho nuyu naa leen bu baax ziar leen sargal leen nuyu sama benn jigéen soxna Ndeye Diop borom angle Serigne Fallou ma nuyu ko ziar ko waaye ziar soxna na koy bu baax a baax a baax a a waaye di souhaité sama benn doom suma xarit ñu naan ko Daouda euh, Mar mu ndaw maa nga xam ne mooy Yatta Diaw ak Mandoumbe Mbaye anniversaire ba kañ la muy le 11 le 11 nag du ay fo du ay jaaxaan Daouda mu ndaw maa ngi lay souhaité bon anniversaire jotaayu jamono tey ñu waxtaanee lu waay def boppam nit deful lu ko may lu waay def boppam nekk lu am importance loo xam ne ki buy def war na sàmm ñu li muy jëf wës lan la ndax euh, doomu aadama bi fa muy tàmbalee di def xamul ëllëg lu ko ciy fekk mais bu ko xamoon dina teel a freiné boppam te jéem a baax baaxlu ndax ñi bonoon sax ñu ngi baax ñu gis ne li ci ëpp léegi wës tey ji dañ ne jigéen ci benn côté ñoom la defar gën a war ndax ñoom ñooy xëy di yendu ci kër yi mooy lu waay def boppam bi ñu ne dafa am ñett ñoo xam ne wëz aawa la ñaareel ñetteel la ñoom ñett ñëpp ku ci nekk da ngaa taawloo doom bu góor ci jëf ju bon rek ci lay ñëw bu ko defee suñu mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci Kifne TV daañu xam ne maanaam lii lu jar a bàyyi xel la wëz kenn ki dafa ñëw ñu wax leen ne leen ne seen doom de ci ñoom ñett ñëpp am na ci kenn ko xam ne oto mbëkk na ko ci tali ba ba génn na àdduna dee na kenn ki ne man sama doom du dee keneen ki ne man juróoma doom juy dee day xoosu rek keneen ki taxaw ne man du ma bouger mètre ndax sama doom xam naa ne dee na wës ñett yooyu la ñuy jàngat waxtaan ci faram-fàcce ci ki ne man du ma dem parce que sama doom xam naa ne du dee ci àll keneen ki ne man doom ah du dee ay xoos-xoosu lay am keneen ki ne man sama doom de xam naa ne dee na kon moom moo la gën a xam ne moom li doon def ci lu bon moom xam na ni moom loolu mooy fayam. xam ne loolu mooy fayam wës waxatuñ loolu ñu jógee fa demaat ki nga xamante ne bi tey ji mooy góor gu baax goo xamante ne bi toolam la am wës bi mu amee toolam toog ci biir tool bi am xale boo xamante ne bi jël alalu jàmbur moo ko tax a jóg kon jikko ji rafet dafa nekk lu am solo ndax moom lañ tagge woon rasulullah alayhi salatu wasalaam waaye ci biir jikko ji rafet jooju ak yërmande jooju noonu fa la ñu tënku di leen xamal ne lu waay def boppam bi loolu la ndax li nga def rek loolu lañ lay fay wës kooku dugg ci ab toolu jàmbur dama mboq dama mboq dama mboq dama mboq ba saako ba fees góor gi gis ko bi ko góor gi gisee mu ñëw mu ne ko xaaral ma yan la mu tiit bay lox mu ne ko xaaral ma yan la te bul jaar ci yoon bi jaaral ci beneen yoon te boo ko soxlaatee bu ëllëgee na nga ñëw man ma may la ci mboq mi ba nga doyal nga yóbbu waaye lii boo ko defoon bu la fi xale fekkoon daan la duma te daañ la gaañ te su boobaa yaa ko yóbbee sa bopp jéggal naa la baal naa la bu ëllëgee boo soxlaa ñëwal ci kër gi ma yabal xale mu dem ci tool bi daggala li nga soxla kooko am waaye kookoo baax waaye kooko am jikko ju rafet lu waay gis nañ ni wës jamono bi ñu toll nii ci kaw loolu lu waay ëppale nit rek wala doomu aadama saa su ne bu xëyee mi ngi fexe nu mu yàqale nit gaañal ma diw fakkasalal ma ko toroxalal ma ko yàqalal ma ko wës yàlla suñu borom sàkk na ay jaamam yoo xamante ni bi ci kaw suuf ñu ngi ci kaw suuf di dund xàccal jëmale ci ñoom waaye boo amul dana wëlbatikuwaat ci sa kaw dal sa kaw ndax yéen néeg la borom a cay fanaan kon ñuy wax ni ki nga xam ne moom jigéen la ki nga xam ne moom góor la yor këram bàyyi fa soxnaam génn dem uti na fexe tàggat soxnaam ci jikko ju rafet waaye na ko tàggat ci lu baax ba nga xam ni lu olof njaay lu waay def boppam boobu na ko fexe moytandiku ndax nit deful lu ko moy adduna bi wës ba mu sosoo ba léegi nit deful lenn lu ko may lu waaye leb la loolu lañ lay fay kon liggéeyal sa njaboot am na ci solo liggéeyal sa bopp am na ci solo liggéeyal yàlla am na solo waaye liggéeyal sa borom kër am na ci solo ndax ci yonent yi amna ci ko xamne dafa mësa ñëw ci buntu kër gi ci kër gi di sét ci domam bimu mu na salam alaykum ana diw soxna sa ne diw de nekku fi nangam ak nangam ak nangam wax ko wax ju ñàkk teggin mu ne ko sa borom kër su ñëwee ne jën bi ci buntu kërëm dafa dëng te jën bu dëng baaxul ci buntu kër na ko yonent bob bimu mu nuyo salam alaykum alaykum salam ndaw ci waxalam koy wax nanu sax ndox ma da koo xas ko ne ko jëgal fi kooku sama baale nit ku bon nga mu ñëwaat fa yoonu ñaareel wëz fekkaat fa beneen as ndaw su baax moo tax jigéen lépp ci moom la nekk wëz jigéen lépp ci moom la nekk bi mu ñëwee fekk fa ndaw su baax salaamaaleykum maaleykum salaam mu ne waaye kii ak nuroo sama borom kër waaye kii moo rafet kii moo taaru ah yow de moom macha allah yow góor gi ak sil toog léegi mu ñëw xaaral ma may la ndox nga naan xaaral tuuti rek yàggul dara papa de léegi mu ñëw toogal nga xaar ko mu ne man nee ko mënuma koo xaar man maa ngi dem su ñëwee ne ko jën bi ci buntu këram jub na lool te jën bu jub yombul na ko toppatoo na ko sàmm na ko aar ba sa ñëwee ba waaj a ñëwee mu ne ko kooku sama baay la kon loolu ñaar yooyu wës da koy xool comparé ko nga xam ni maanaam lu baax am na solo te moo gën mais lu bon fa mu lay jëmee bul ko xam fa mu koy jëmee fa koy fa mu fa muy mujjee bul ko xam léegi nag yow nga xam ni lu baax am na fay mais lu bon am na fay ndax kooku nga xamante ni bi tey jii doomam baayam di ab yonent mu ñëw fa di seet si jikko ju bon jooju jëkk ndaw si yor ak jëfinam boobu noonu moo ko moo ko xañ say boobu moo ko yàqal kon jeunesse bi nga xam ne ay ndaw lañu ñun ay ndaw lañu toll ci war a denc soxna waaye ay ndaw yu jigéen ngi fi toll ci war a sëy kon man damay jàpp ne buñ ko jàppee def lu leen neex kese ndax lu waaye def boppam ni def lu ko may soo génnul fii ne gis naa gaynde was boo génnul ne gis naa gaynde man su ma yeboo ma weddi su ma yebee ma ne man gëmuma waaw su ma neexee ne gëmuma ne gisuma gaynde waaye man mi gis gaynde man man leer na ma ne man gis naa gaynde man ndax loolu ay mbir la yoo xam ne soxlul ku koy demontere ndax mbir nit mënu koo démontrer bët du ko gis nopp du ko dégg xel du ko xalaat olof Njaay nee na koo xamul xamoo ko koo xamul nan la ak naka la la defal ndànk teyal ci moom waaye senegal nag léegi waxante bi lu ñaaw dafa bëri dund dund dund dund dund boo xam ne dund bu amul benn benn benn benn fasaaxa parce que yaa ngi dund benn mbir mais xalaatoo ci ëllëg yow lu teew rek ngay gis yow li ma mën a am tey moo ma li ma intéressé wul maanaam man li ma mënta am intéressé wu ma kon yaa ngi topp ci àdduna bi di daw di ngaf ngafi man laal ci benn mbir bu am solo boo xam ne benn waaye ne dafa mës a ñëw jàng arxuraan ba wàcc kaamil tëj téere yi bàyyam ne ko kaay nga jàngi àdduna mu ne ko nag àdduna bàyyi téere la wala lu ñu koy jàngee mu mën koo jënd kaye ak bi nga fa ngay wax may bind mu ne ko déedéet saa boo xëyee rek foo jublu rek loo gis rek jàppal loolu la te nga bind boo ñëwee maa la koy firil was waa dafa génn ci buntu ga dajeeg benn dërëm suul dërëm bi dërëm bi sulleeku xis na ba gudd lool dama ciy gàttal ñu laal ci ñaar ba ñett rek beneen bi nee mu gis golo gu ne ci kaw taatu garab di tibb ci araam di sex beneen bi nee mu gis ki nga xam ne moom mooy rabu àll boobu di till nee na till bi côté bi or la côté bi xaalis la bu a sama jàmm jeex na dama koy dàq ba jot ko su ma ko jotee tekki bi mu ñëwee bàyyi ne ko lan nga gis mu ne ko dërëm daal laa suul bàyyi su ma ko suulee mu suulee ko mu ne ko gën ci lu ñu ko suuxlu koy tàggat moo koy yëkkati kenn mënu koo faqasal wala soit nga di wàcce wala nga koy daaneel ndax yàlla noppi na pare na ci moom ay mbiram day dox mu jógewaat fa tamit dal ci benn golo mu ne ko golo googu mooy kan mu ne ko golo googu de mooy ki nga xam ne mooy jigéen ji dem fi nga xamante ni kenn xamu ko fa su mee ko jaay ut fa nekk ak appartement di jaay boppam di dundee kooku mooy golo googu mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko loo ca teg mu ne ko la ma ca teg bàyyi mooy damaa toog ba mu yàgg ma gis ab till boo xam ne côté bi or la côté bi xaalis ma ne nag tàggoon naa ak sama sago pare naa ci àdduna su ma ko jàppee sama baax kooku mooy duniyaa gi ñu nekk mooy àdduna saa bu dàqee till bi till da koy raw wës après daal di góor bu till bi góoree ba mu yàgg ba mu koy waaj a jege till bi jogaat mu di ko def di ko dàqe wës di ko dàqe di ko dàqe di ko dàqe ba mu dugg ci xur bu lëndëm bi mu ko expliqué baaji baaj na ko waa loolu nga jàngi mooy àdduna kenn du ko jeexal saa bu ñu xëyee da nga ciy xëy di daw di daw di daw ba ngoon jot nga dem ñibbi sa kër boo xëyee nga nekkaat ci mu ne ko ah mu ne ko ah mu ne ko fa mu dugg nag ci xur bu lëndëm boobu mooy dee ku fa yegg taxaw kon nit ñi bu ñu doon xalaat dee comme ni ko sëñ Samba di waxee rek rab yàlla taal alwa yàlla na yàlla ñu ko te yokk leeram taaf na ci barkeem ak njabootu sëñ Samba ak yëpp rawatina maam Cheikh mbay xalifaam waaye du nuyu bu baax aussi sëñ Ibrahima Mbaye doomam suma xarit suma lépp maa ngi koy ziar bu baax a baax waaye du nuyu waa Louga yëpp ak waa Kébémer Weuz mu ne nit doomu aadama bi dafa xamul dara waaye di jëf ngir nit ki naa ko yàqal wala naa ko toroxal toroxal sa bopp la ndax nit ki am na ndey am na baay am na cosaan am na géer am na ay nit ñoo xam ne ay nitam lañu ñoo xam ne bokk nañ ci moom am ñoo xam ne bokkuñ ci moom xam na ñoo xam ne wës tey ji boo leen fexeloon bay ba di leen fexel di leen fexel la leen défendre yow doo leen xam ñoom duñ leen xam kañ ñuy défendre sax moom est-ce que moom xam nañu koy défendre ñan la kon suñu réew mi buñ ñu bëggee mu dem Sénégal nañu jël li ñu jël la ñu jël li ñuy jël teg di ko def suñu bopp bi yow pour ma am foog ma toroxal nit pour am wala foog ma sacrifier nit pour am non non non loolu taxul taxul taxul maanaam nit mën a am li bëgg ci àdduna ndax àdduna dañ ne wa fëjjirul mbox mu ñu ne wa jannatul kaafiri kaso jullit la di àjjanay kéeféer kaso du maanaam lu la neex nga def Seydina Omar alayhi salaatu wasalaam dafa taxaw tëkkuwante wax ne doomu aadama bi gëm yàlla dëgg-dëgg bëri na lu mën a am ci àdduna te du ko am ndax wës lan moo tax mu ne ragal yàlla ga moo tax yàlla moo tax mu bëri lu mu bëgg lu mën a am te amu ko mais ragal yàlla moo tax ragal yalla googu mo koy xagn mu nara def lo xamanteni bi tayji lu mengul ak bëgg-bëgg suñu borom la mu ne dedet duma ko def dama ko fay ba xalaat na yalla ak rasulullah alayhi salatu wasalam waaye ma la samay wajur yi ma suku jur wos nga baye xel sa nday baye xel sa ndax abdullah ibnu abbas mi nga xamanteni moy mooy rasulullah alayhi salatu wasallam yalla yalla yokel leer ci barkem abbas dafa tok, ci beli dilek, di lek pok rasulullah alayhi salatu wasallam dab abbas bi mu di def wëss fu mu gis ci loxom rek ci ndab rek tibbu fu mu gis rek jël fu mu gis rek jël abbas nako ko bi alayhi salatu wassalam nako abbas mu nako nam mu nako kul bi ma xabdi wa helika wa mastahan na nga tàmbali ci sa kanam ta nga ni bisimilah ta boy fab bul fab ñaar wala ñett fabal ben da ngay saxé bam moko nga wanaasu ko mais koku kay nga xamni manam maanaam dem na dunduna ba am ay bi genn aduna ay siècle muy toog di xalaat loolu di ko waxaat ay sëtam kon nga jàpp ni yar googu noonu ak teggin googu noonu ak defar googu ak defare googu noonu tey ji nekk ci moom ba nga jàpp ne yow tey ji man ka nga xam ne yar na ma muy sama waajur bu góor ak sama waajur bu jigéen ak ñi nga xam ne mooy kilifa yu baax yi ma yàlla suñu borom boole ñu may jàppale ci lu baax ñooñu tey ji damay jàpp ne tey ji bu ma nammee def dara bu ma leen xalaatee damay dellu ginnaaw arrière ndax surtout alaaji bu saaxo ba sëriñ daam saaxo dafa wax ju am solo wëz nee na booy ànd ku ñu rus wala ku ñu ragal wësatu alaaji bu saaxu sëriñ daam saaxu mu ne wës booy ànd ku ñu rus wala ku ñu ragal da ngay moytoo tooñ boo tooñee dana la jàpp ci loxo ne la dama nga jégglu buñ la tooñee dana taxaw ne la carrément tooñ lañ la waaye ku bëgg a ñëw utal si la pour dal si sa kaw moom nga fay fekk kon kooku da lay leen kon am na lu mu àndee ak yow ak fu mu bëgg a jëm ak yow kon loolu mu lay wax noonu yow da ngay jàpp ne sax moom bu fi nekkul ma jàpp ne tey ji studio bi ma toog man damay jàpp ne sëñ daam saaxoog sama ginnaaw bu ma moytoo wax loo xam ne après lu safaanu la wala ma moytoo def loo xam ne lu safaanu la ndax da ngay rus da ragal dangay ngay moytandiku waaye ndaw ñi léegi rusuñu ragaluñu warmaaluñu dara fa ñu war a sujjootee la ñuy saw mooy musiba bi gën a rëy ci jamono bi ñu toll nii génnal ci mbedd mi ngay duusu nga xool xale yi boo amee xel yërëm leen boo gàttee xel doo leen yërëm li ma wax rek dañu rus duñu ragal fa ñu war a sujjootee la ñuy taxaw di fa def naka sudul noonu mu nekk lu ñaaw loo xamante ni bi ndaw ñi nañu bàyyi seen xel ci côté boobu te xam ne ñooy nekkee mag ëllëg ñoo yor njaboot image dafa jar a sàmm couleur dafa jar sàmm dëkkandoo dafa jar a sàmm am di jàmm dafa jar a sàmm waaye nag ngor dafa sana jar a sàmm ak dignité rawatina ak personnalité nit day xam boppam ku def li la war wàccug li la wër def li la war wàccug la wër wës parce que nit ki amul lu dul boppam muy góor jigéen amul lu dul boppam kon na moytandiku ko def loo xam ne ëllëg dañ koy fayee loo xam ne musiba lay doon ak mbàbbu kumba ndax mooy too jëf loo xam ne ëllëg buñ ko ko fayee mu rus wala njabootam rus sóoraale njaboot gi sóoraale sa bopp sóoraale say dëkkandoo la sa ëllëg waaye na nga sóoraale bàmmeel xam ne xat na lëndëm na tey nag kenn dafa wettali kenn du ndey du papa du xarit du am di jàmm ndax foofu la yonente bi salaa salaam di wax ni ak a neexoon ñu jël sa ndey jël sa baay dugal leen fii te nga mucc nga ne waaw waaw yàkkamti ko ba doo ko gëmee kon foofu metti na foofu tar na wës foofu tiis na foofu doy na waar ëpp na tool nañ koy xalaat di ko bàyyi xel di ko suuraale te xam ni buñ ko deful du ñu am jàmm foofu di nga am jàmm fii nag ndax yaa ngi ci li la neex nekk ndaw dara tëwu la suñu borom jox la kàttanam jox la dooleem waaye boo góor góorgóorlu tuuti rek pour nga ñàkk fii ñàkk fële danay yomb kon temu tey bi ah, waxtaanu tey bi kon loolu la mooy lu waay def boppam lu waay def boppam nañu moytandu koo def lu bon nañu moytandiku wës di wax lu bon nañu moytandiku di génne suñu làmmiñ lu ñaaw te xam ne image dañ koy sàmm ñun ay ndaw lañu ay xale lañ xale mooy doon magi ëllëg waaye xale bi mooy war a am lu mu représenté ëllëg xale bi moo war a am lu mu servir réewam ëllëg muy jigéen bi muy góor bi ndax tey wës man mi nekk xale tey su ma yàlla mayee fan wu guddee wér maay dem ba nekk paa sama doom màgget am ay njaboot am ay rakk am ay leneen ak leneen man ma nekk pas doon maam image bi su ma ko sàmmatoon ci bi may daw bu ëllëgee nu may def ci télé laa nekk am na loo xam da nga koy bàyyi xel pour ëllëg luñ la fay dencal la luñ la fay bàyyi la wërsëg du la neex rek nga koy sàqoo wala noo ko bëgg amee rek amee ko noonu naa ko am rek mu dugg sama biir poos seetoon nu mu demee kooku erreur la te incha allah rabbi beneen jotaayu jamono altine bii di ñëw wërsëg lañ leen indil ak nan lañ koy sàkkoo loolu moom mu bëgg ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax a baax te xam ni foofu la ngeen teg seen baaraam incha rabbi loolu moo doon waxtaanu tey bi loolu moo doon jataayu jamono tey ñuy waxtaanee lu waay def boppam ndax nit deful lu ko may waaye jàpp leen ne lundi bi di ñëw incha allah ci kàttanu yàlla daañu waxtaanee li nga xamante ni bi tey ji moom mooy nit ki nan lay def ba sàkku wërsëg jaarale ko ci fam ko war a jaarale waaye nu ma ko amee rek baax na erreur la te erreur gënu koo màgg ndax suñu borom ëllëg ah daf ne wa kullukum raayikum wa kullukum matrati raayatihi sàmm ngeen sàmm laa ku nekk daana laaj ëllëg la nga yoroon ak fa nga ko jaarale ak nan nga ko ubbee ak nan nga ko sàkkoo ak nan nga ko sàmmee ba ak si fii ci man dërëm bu ne dana wax fan la jógee loolu mu jara mën a mat a bàyyi xel nekk nag lu jara war a mën suuraale muy man di sama morom di képp waaye nag wës fi ñuy tëjee rek mooy santaal bu baax gërëm ki nga xamante ni mooy Baye Moustapha borom télé bi di borom kër gi waaye nuyu la yow wës bu baax sama caméraman bi nga xam ne macha allah waaye di nuyu bu baax a baax a baax waa arrêt BS Doré bi nga xam ne ñoo nekk foofu noonu ci Kër Massar sama mbokk yi nga xam ne ñoo fa ne di jawal cak-cak su xarit su may am di jàmm fa nekk ñoom Babacar ak yeneen gaay yu baax yi nga xam ne ñu nga fa ak ñoom Manga nga xam ne macha allah da nga fay ñëw di jënd sax taxaw fa waxtaan fa waxtaan bu neex ndax ay nit ñu baax lañu kon maa ngi leen di remercier beaucoup ñoom ñooñu nga xam ne ñoom ñoo fa nekk waaye di nuyu bu baax maam Marème sama jigéenu bopp borom salon sëñ sopp sëñ Babacar si CFA mu nuyu ko ziar ko waaye ziar ziar soxna Ndogo Diop bu a baax a a baax waaye nuyu sama benn yaay boobu sama xarit ñu naan ma ziar ko ziar doomam boobu ñu ñu naan ko Abi Diop nuyu ko ziar ko ziar Daouda ñang baalo sama doomu ndey sama xarit waaye ah, a a a a a diwaan mooy sama lépp falaa yow di ñëw di sàkku ji sama wërsëg ci biir dëkk bi kon di wax alhamdulilahi rabil alamin di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye di suwaate waat anniversaire bu a baax baax a baax Daawda Maar mu ndaw Yatta Jaw ah Mandumbe Mbay di leen wax ne la 11 moom ndeysaan du ay fo du ay jaaxan dafa am bis nag la 11 nag bisu Daawda Maar la ak Mandumbe Mbay ak Yatta Jaw kon seen bise noonu la 11 maa ngi leen souhaité bon anniversaire kon loolu moo doon émission bi tey loolu moo doon waxtaan bi tey ci jotaayu jamono asalaamaaleykum wa rahmatullah wa ba beneen lundi incha ba beneen thème ba beneen waxtaan beneen émission